RTV Dakar yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw bu leen fàtte bés cloche notification bi ndax mooy tax ngeen di jot sunuy vidéo jàngeen jëf. a xeex salaamaaleykum wa Sénégal ñun les jeunes talents ñoo ngi leen di sensibiliser ngeen toog ci kër yi pour euh, jàmm yaramu askan yi jërëjëf. pour c'est ça Bintou bokku ci groupe les jeunes talents dama leen dañuy ñëw di leen ñaaxaat euh, nañ top suñu kër yi pour stopper propagation bi di coronavirus bi ñu ñu utiliser le antibactérien di ko raxasoo pour ñu stopper feebar bi. coucou sama gars yi maa ngi tudd Ndiolé maa ngi. maa leen di wax rek euh, ngeen jël ci kër yi te ngeen di salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal les jeunes talents de Rufisque ñu ngi leen di souhaiter ngeen toog ci kër yi ak euh, feebar coronavirus bi ñu ngi leen di souhaiter ngeen toog ci kër gi waaw ngeen jàppale ñu jàppale waale askan wi quoi. salaamaaleykum maaleykum Diallo maa ngi présenté wu nii euh, di wax ni rek euh, les jeunes temps ñu moytu ci coronavirus bi nii dund loo xam ne lu bëri la ñu moytu daal man laa ci gis merci beaucoup. salaam salaam les jeunes talent yoo ne bàyyi nañ ci jàmm baax a baax baax ah daal feebar a xeex te métti bu baax a baax a te utiliser gel bi ngeen fàtte gel bi dina raxas seen loxo ba mu set ngeen kër. Bonjour, salut la famille, j'espère que vous portez bien. En fait, c'est Papy from Les intendants. En fait, pour vous, pour vous dire un petit message, il faut que, il faut que vous restez chez vous, il faut que vous soyez prudent de cette maladie parce qu'elle est très dangereuse. Les intendants, Khadim Piam, depuis risque je suis chez moi, restez chez vous. Même que vous mettez, santé Merci. RTV Dakar. yéen ñi abonné gul leen gaaw bu leen fàttee bés cloche notification bi ndax mooy tax ngeen di jot sunuy vidéo jàngeen jëf